mbokk yi dalee nag jàmm ci di toppal actualité tey nag lu doy waar indi ñu fi nga xam ni moom mooy euh, ci Sacré Cœur euh, nag ci immeuble bi nga xam ni moom moo nekk suñu ginnaaw euh, benn médecin moom moo fi daal di faat bakkanu ñetti doomam ñetti doomam nag yoo xam ne ay xale yu ndaw lañ bi mu paree moom ci boppam mu daal di faat bakkanam loolu nag xewee tey fi nga xam ni moom mooy Sacré Cœur ci suba si mu nekk lu doy waar loo xam ne xew na fi dañuy ñëw nag xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee maanaam te mooy ñu wax ñu mbir mu mu doy waar loolu le nan la daal di demee. bon damaa xëy fii euh, vers sept heures sept heures laa ñëw fii après fii lañ toogoon damaa toog fii ba benn ins après ma bëgg a connecté quoi vers neuf heures trente comme ça wala dix heures comme ça. après benn euh, benn femme ak benn kii nii grand ñu may romb si escalier bi. ñu ne ma ana gardien nga fi ma ne ma ne waaw gardien laa fi après ñoom damaa dëgg ñu fëgg bunt bi. et trois fois quatre fois ubbeewuñu après mu woo kii menuisier bi menuisier bi ci la dajji bunt bi mu dugg ci biir dégg naa foofu femme bi muy jooy rek yi yuuku di yuuku rek ci laa ñëw ma woo sama booy bii nii ma ne booy kaa ñu dem ci kaw daa am lu xew ci kaw après ñu dem ci kaw eh, ci laa dugg rek ma gis ki kii ñaa eh, ñetti doomi ñeenti eh, ñetti doomi ak kii ak papam bon peut-être ku ma gis moom moom am na quinze ans quinze ans wala quatorze ans comme ça jigéen xale jigéen waaw yeneen xale yi gisuma leen taay bi exactement quoi mënuma am xaalis quoi bon loolu moom dégg naa ay rumeur ñëw ñu ne ma ay 17 heures lañ ñëw fii waaw démb ay 17 heures lañ ñëw fii te si suba si lañ dégg crime bi quoi kam moom moo moo woo policier yi ñoom ñu ñëw fii vers 11 heures hmm? ñoom ñoom yëpp dëkkuñu fii lieu de travail la ko ñoom fii cabinet médical la fale cabinet dentaire la waaw léegi rakkam cabinet médical bi fii la nekk fii après police ci la ñëw vers 11h ñu commencé enquête am ay 14h40 la ñu yóbbu kër yi. gis naa foofu ay deret de mais deret bi par exemple man fii laa taxaw ma ma gis fale deret bi après ci laa tourné quoi parce que man affaire bi dama maa kii woon quoi dama maa jaaxale woon trop mënu ma woon nekk foofu ba yàgg quoi fekkee tamit euh, femme bi mu no muy foofu di jooy rek après ñu jël femme bi ñu ñu wàccee ko si suuf. waaw sapeur tamit ñëw na waaw ñoom indi nañu fii ay médecin ñoom dañoo dugg ci biir di sol max pour vérifier quoi waaw après ba ñu paree ñu yóbbu ko sapeur presque motul une heure de temps presque trente minutes si vers trente minutes comme ça parce que ay dix heures affaire bi ay dix heures lañ koy déggee sapeur vers onze heures lañ vers onze la ñëw fii